la mbokku internetu DS Prod amati nañ mbégte kontaan te jàkkaarloo waat ak yéen nee la suy baax di neex DS Prod lay xewee la ñoo mën ci événement ñëw ci sut waaye nag tey dañoo def direction ci Petite Côte bi ñëw Mbour Géej nee naa la soo waxee Mbour Géej tudd Kankuram wax aar soo waxee Mbour Géej tudd artistes yi wax aar nee naa la tubarkalla fii la fecc ak tëgg ak kankuran fekk baax nee naa la tubarkalla bu ñu sóoru baawul ña ngay def xaqataay show ànd ko nag ak DJ Paco ren di troisième édition bi ñu takk rek suñuy jaajë fas yéene leen a wan ngeen ree ba toqe dëgg neexul nee naa la mbuur am naa fi samay nawle nag ñoom Bakary Ndaata ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ku lim juum tey artiste boo leen namoon da ngeen koy use ay ca ñu dem seetaani programme dëgg neexul kàlla comme niñ leen ko waxee nag boo duggee Mbour sa xel ci ki muy njëkk a dem mooy Bakary ah Bakary Alaaji Fay ñu gën koo xam ci Bakary Bakary maa ngi leen nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax euh, Maté di nuyu waa site bi DS Pro di leen euh, sant bu baax ci seen déplacement depuis Dakar pour ñëw Mbour fekk si ñu. ñu ñëw tey Mbour fekk si leen ngeen nekk ci seen troisième édition wu Xaqataay Show lan nga ma mën a wax ci programme bi. bon programme bi ñu ngi ci trois troisième édition def nañ ko trois ans. ren ñu indi ko Mbour defee ko fii parce que sal lañ ko doon defee mu nekk événement boo xam ne ñëpp bëgg nañ ko te ñëpp dañ koy xaar ñëpp dañuy yàkkamte mu am parce que nit ñi ñoo ñu ko gën a bëgg parce que bu lii wane na ko artistes yëpp ñëw nañ ñi ngi préparé pour ñëw mais nit ñaa ngi toog te xàddiwuñu programme bi buñ ko dee def pour maanaam suqali maanaam euh, li nga xamante ne nii mooy aar bi ci biir Petite Côte bi ci biir département bi nga xam ne lëkkale na lu tolloog 16 communes loolu moo tax ñuy taxawal lii pour def ko mais ni nii pour de stress pour maanaam soulager nit ñi parce que day baax léeg-léeg ngay def divertir reetaan bég euh, delloosiwaat sa xool boo amee ay problème wala ay kii nga nga tàqali kook moom loolu lañ ko def en même temps li ñu ci ëppal solo mooy génne ñi nga xam ne mooy jeune yi fi nekk tey def di am envie pour def one man show bëgg ku leen pousse bëgg ku leen jàppale loolu moo ñu gën a poussé pour ñu amal organisation bu mel ni di ko def choisir choisir ñu dara lu dul def li nga xam ne mooy one man show ci Kaolack ñun ñu jàppale leen pour ñoom ñu mën a dem parce que bu ñu leen tegu loxo rek gëm naa ne ñoom duñ dem. ay ca waa Sénégal kii boo leen ko gisee mooy Bakary demal ñibbi. mu ne maa laang fii laay toog. ay ci tubaarkàlla mi ngi noonu ma ne ko yow yamoo ci bégal waa Mbour da ngaa bégal àdduna mais Bakary gën nañ la gis de. Euh, actuellement xam naa ni euh, yàlla sax euh, mooy dogal maa ngi doon amal benn réunion keroog bu tudd la dafa am benn série cinéma bu ma war a def maa ngi ko war a tourné Malem Odar. te bi may def loolu bay def sama découpage dama la am fu ma la sentir yow yow ak Pape Demba Dia bu tuwaawoon ma am lu ma leen sentir pour woo leen te xam naa ne yàggul dara incha allah feeg ay wéeru néew rek dinaa la woo ñu amoon loolu. ñu gis waa Mbour dañ laa jox bopp wool ma leen ñu ñëpp ci DS Pro. xam naa ni man maa ngi koy doog gis tey fii biir mbuur waaye na leen leer na bu soobee sunu borom tey bala ñuy paree maanaam xaqataay soo bi képp ku fi dugg dagg tike dina abonné. merci beaucoup. waa kër yi demal ñibbi. mu ne maa lànk fii laay toog. borom Arko Pikine Papis kenn dootu ko présenté ci àdduna nee naa la bu fekkee danga koo dëpp caméra cinéma moo ci man waaye bu dee sur scène tubaarkaala bàyyi koog moom ñu ngi lay kontaane. waaw maa ngi lay fay sama sista bu baax bi yow moom kenn du yow ci man xam nga loolu sax. dëgg neexul ñu bëggoon a xam rek sa relation ak DJ Paco. waaw DJ sama waay la DJ sama waay la rek dafa doy lépp parce que dije dañu yàgg quoi depuis bala mi ngi koy wax depuis mu nekk Cap-Vert ba instant bi ñu nag euh, DJ man en nekkuma fi woon sax waaye dama nekkoon lu mu mënti métti dinaa ñëw fekkee Xaxataay Show tey ñaan naa ko suñu borom ba may ñu ko ñu ñëw fekk ko incha allah mbuur moom tey moom day. waaw tey mbuur lay booy. aji la ñoo ngi nii nag jàkkaarloo ki nga xamante ni euh, coow loo dégg jàppal am na jàppal diw jàppal DJ Paco mi ngi nii taxaw muy euh, président Babacar Ba ba Pulo ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay soxna si. Euh, ñu bëggoon a xam rek lan moo war waral sa teewaay ci bés bi. Ah, juste pour ñëw fekkee événement bi ñu am ci sunu xarit boo xam te ne mooy DJ Paco. invité ñu ñun yàlla aussi dogal ñu nekk président group bi. Eh, ñu jóge ba Dakar rien que pour ànd ak eh, waa kër gi ñëw ci manifestation pour hmm. eh, fekke bés bi daal. Hmm. mais bés bi nag dafa mel ni dang nga cee taxawee ñaari ñaari boor paaka ñaari boor nga ci ndax loxo pak pak pak pack food produit yooyu noonu nga xam te lu fi baax fi mu ne nii ci réew mi bu bu dul produit pack food baaxul tubaarkàlla ñu bëgg rek nga ñëw ak ñun tuuti ci loolu. d'accord soxna si pack food dafa nekk produit boo xamante ne denrée alimentaire la te euh, ay jeunes ñoo ko ñoo ko fii Sénégal donc euh, maison mère bi ngi Hollande donc ñu ne fi ñun aussi di ko importer di ko indi Sénégal mu nekk produit boo xamante ne si kër goo dem aussi di ko fa fekk parce que mi ngi commencé dugg di law ci dëkk bi qualité am ci importance en plus que boo xoolee mi ngi ci euh, comment dire ci Auchan yi mi ngi ci grande surface mi ngi ci lépp mu nekk euh, produit boo xam te ne damay conseiller sénégalais yi aussi surtout li nga xam te ne moom mooy waa Mbour ñu gën ko consommer te xam ne seen doom mhm. moo koy importer di ko indi au niveau du Sénégal mhm. Mhm. aja la man xam naa ci dara nee naa la pak food yeneen produit leeru ma waaye seen seen loxo ubbu ko la ah, léegi nag produit bi da ngay ñëw ànd ak waa Despro ñu koy jaay incha allah produit dina ñëw seet si waa Despro su ko defee ñu mën ci def liggéey bu solo jërëjëf soxna ça va maa ngi fi. xale bi ba xam nga yaa ngi belli nii. maa nañ bàyyi. muy ma fan nga jógee ñëw ci programme bi. Euh, maa ngi jógee ba Tubaab Jalaaw. waaw di Pako sama frère la sama xarit la xam nga euh, ñu yàgg lool nag mu nekk nit ku baax ku am yite franchement aji tubarkàlla nee naa la waa kër Dj ñoo toogee nii xale def nañ ba mu ba maa ngi lay kontaane waaw ah, macha allah ñu lay delloo ñu ngi gën a kontaan ñu bàyyi la nga wax àdduna yow la kan man la Sidi Ndiaye ci groupe Dj Paco waaw di am kontaan trop ci teew ci tey tey tey ci bésam bi ndax nag di jëppa ko kenn la si ñun quoi waaye koo xamante ne bii moom du tànkam lu kenn waaw lu nit xewlee day da ciy sonn trop trop rawatina man mi kon nag bu xewle damay bàyyi lépp mu ñëw di ñëw man programme yi mel nii sax duma ci faral di ñëw mais nag kii da di kenn ci man ndax keroog bi ma leen wooyee sama kër waa waa groupe daje pa dije ñëpp ñëw ñëpp a ñëw ma kontaan trop trop trop trop ñu siggil ma sagal ma samay biir ba kon nag tey pako bi xewle damay bàyyi lépp li ma jàppoon li ma man ak lu ma mënul lépp ma ñëw wax dëgg yàlla ñu ngi am kontaan trop di la xamal ne waa kër di yëpp ko gis nga ñëpp def nañ ba mu belli nday bu sëñ a maa ngi lay ziar maa ngi lay Tima di am kontaan ak mbégteel ñëw fekkee si programme DJ Paco bi car macha allah euh, gis nañ fi ambiance affaire bi neex na car macha allah ñu koy ñaan yàlla ñu koy yàgg di traité xéwal gi gën yokk car macha allah yéen kenn du yéen maa xeeboon ni nga def non non xeebuma waaw ah, wanal wanal wanal xale sa yëfu minet jëlal ma laay lay la laa man daa robb bëgg naa ku mel nii di ko sol robb ku ko solati ku dul yow naa ko tëj naa ko tëj tum aja tubarkaal la ne naa la boo nee boo nee mbuur nag ni ceeskaay benn dëkk ñaari gaar ñu tasanteeg artistes yoo xamante ne kenn dootu leen présenté ku ne xam na ne kii mooy Bou Kounta <laughs> tëji moo ma ci jaaxal wala tax bu kunta wala bu kunta waaw bu kunta koy wax euh, di artiste comédien euh, di leen nuyu di leen sant bu baax euh, encore une fois Maty sa liggéey rafet na bon di am contentement ci bi ngeen ñu laajee tey suñu xalaat tey vraiment ci biir activité bon di kontaanee vraiment notre frère euh, Didier Paco parce que jóge ba ci ñëw assisté ko mu def lii mu def Mbour mais aussi waa Mbour génn euh, teewal ko bisam jàpp naa ne nit ku nekk fa nga dëkk bëgg nga boo wootee ñu wuy si la te vraiment waa Mbour def nañ ko euh, ñun aussi ñu am contantement mu nekk suñu jeune frère ñu bokk ci la ñuy yëngu ñu ñëw dooleel ko. waaw bu ñu gis boo bindee ñu ni gongo boo joué ñu ni gongo bu sa secret lan la tubarkalla sa secret lan la. waaw sama secret moom je pense que c'est la société rek lépp lu ñuy def ñu def ko mu nekk Sénégal mu nekk aussi la fierté sénégalaise que sa soit dans l'écriture de scénario que ça soit dans le jeu d'acteur lépp ñu koy def ak humilité mais aussi topp ci ñi nga xamante ni dañ koy def mën ko ñu jàngee ci ñoom waa di ko tane rek. amiin yaa rabbi jërëjëf fo baat yëkkati rek mu wadd nga ne ma yëkkati rek mu wadd ci taatu valise bi ma sol eh ngi nii nijaay dañuy ñëw wala yaay ñëw mais dañ leen a defaloon kenn waxalu la man bëgguma li damaa bëgg woon àdduna ni maa ok di jaajëfal waa DS Pro waaw jaru nga may posé ba mu nekk nijaay lan la mooy sa ñeenteelu télé boo nekk doo toog fenn Euh, voilà ñu ngi refet lu seen liggéey am na solo parce que bis bi ni ngeen ko téye su du woon ngeen mu ñaaw quoi waa DS Pro du dëgg parce que Paco ku mu woot da ñëw hmm? yow xam nga Paco kii xam na Paco ñëw xam nañ Paco moo tax ñu ñëwul Paco ok merci. waaw ah, Ndiaye lu tax nga sonal ñoom Ndeye Ndiaye. Ndeye Ndiaye ak Fatou Kiné samay jarbaat lañ parce que ñoom bu ñu respecté wul seen jarbaat seen nijaay no duma leen ay salopard ay salopard ay Ndeye Ndiaye nooy woowee Ndeye Ndiaye. Ndeye Ndiaye laa koy woowee. di leen déggawaat encore une fois ku sa xol neex yuuxul ku sa xol neex yuuxul. ma ne lii dafa neex bu ne nee gees. aj tubaarkàlla kii nag kenn dootu ko présenté àdduna ah, mooy Mandoumbe ah tubaarkàlla mi ngi noonu xale faramaareen yi dëgg neexul doomu yaay ñànku doomu yaay Wally Ballago Seck xale yi poñe àdduna ñoom la théâtre jox bopp guddi yi maa ngi lay ziar <laughs> yàlla yàlla ngu ziar <laughs> borom ngaay lan ngay ree ah waaw léegi waxal àdduna lan ngay ree dara de taanu ma dara ana kii bi bi baax léegi oto bi ba léegi daa paan. Hmm. waaw ah? bi moom maa ngi wax huile bi. sa waay ah, ñu bëggoon xam rek sa relation ak DJ Paco ba tax nga def déplacement ñëw tey. waaw avant tout d'abord dama leen di nuyu di nuyu mbokki internet di nuyu seetaan vraiment DJ Paco di kenn ci ñun di sama xarit suma doomu ndey suma genn wàll parce que moom lépp lu mu mënti xewle rek. bala ci waxtaan ak kenn man dinaa bokk ci ñi ci njëkk a waxtaanal muy DJ Paco ñu seq ay relation yu yu yu doy waar day déplacé yu ñëw ba dakaar sama kër seet si indi ay teraanga yu bari ni ma lii sama soxna laa koy may comme moom dafay liggéey ak waa daal day indi ay savon ay saabu yu bari ay ay paan hors de lu ne di ma ko jox ni ma joxal ma madame kon kooku dafa baax bu dul loolu sax dañu seq ay teraanga yu bare bare bare mu nekk nit ku baax kon moom bu wootee bis bu toll nii à Mbour ñun lépp lu ñu mënti jàpp dañ koy bàyyi ñëw tey am na suñu benn frère bu xewle muy Youssou Sall Serigne Neex tey la woon programme à Pikine mais dañ ko fa bàyyi suñu yeneen gars yi teewal ñu fa ñu mën a volontaire ñëw bi ñëw ci sa relation ak Niankou parce que léeg-léeg dañuy dégg ñu ne waa Pikine da leen a boycotté jéemoo bokk ci seen ay organisation jéemoo ànd kenn ku dëkk Pikine loolu lan la. man bi ma commencé ba théâtre ba léegi ñi ma mas a àndal ñëpp genn wàll gi Pikine lañ dëkk genn wàll gi yëmbal lañ dëkk ba tey jii nii ñoom maalaw ñi may àndal ñoom Pataas Mbaye ñoom Dukure ñoom ñëpp yëmbal lañ dëkk bébé Aïcha bi may àndal Kër Massar la dëkk waaw kon lan la luy problème bi ah waxal luy problème bi ah seytaane yow mii affaire oto boobu tamit foog ñu leeral ko fii programme la ñu waroon dem waa <laughs> ànd moom mii ak euh, sama xulawaal ba taxaw jaara ñu war ànd ak ñoom dem juillet ji <laughs> jour korité yow nee na la jour korité dañuy juillet ji Mbàkke doo toog korité seen kër ba ngoon nga soog a dem mbake mais fajar teel nga départ ngaay ñëw toog naan allo fu ngeen toll ko oto bi daa paan nga ne yu woo di woo ba noonu la mujjee ñibbi korité bi yëpp Thiès la ko passé xoola ci rond point dégg nga bi fa la passé korité bi. mais danañ di bàyyi rek incha allah ñu soog a dem. waaw léegi guddi yi ñu toll gis nañ leen ngeen def ganu Thiès yéen a def ganu Ndar léegi ganu fan moo ci toppaat. waa comme ganu Thiès ñu ngi koy dóor di nuyuwaale sama xarit sama sëriñ sëñ Medoune Seye borom tawféex mi nga xamante ni moo waral loolu yëpp def nañ ganu Thiès def nañ ganu Ndar nañ xaar ganu Saalum day ñëw ganu Dubaay day ñëw ganu Italie ganu Paris ganu Gambie. léegi man sama waa site bi Doudou Seck leen ko wax mu euh, la tubaarkàlla. fuy li li réew mi di ñoom ñoo ko poñe foofu ci États-Unis. dégg nga loolu mbokku yaayu Sankara Mbaye mbokku yaayu moo géet ah dëgg neexul suñu chaîne la suñu site la nañu xaar bu ñu ñëwee foofu ñoom la ñuy àndal ñu liggéey ganu États-Unis bi. waaw mais soir Sidi Diop bi passé gisuñu leen ci de lan moo tax loolu te nga dëkk Pikine Sidi Diop dëkk Guédiawaye benn tali moo dox seen diggante man xam naa la fi nga dëkk. ah soirée fan la amee woon. Sidi Diop Bercy bi mu doon tëgg. Bercy bi fekk ñu Dakar. fu la non jour boobu gis naa la da nga jour boobu daje nañ technopole. Bercy bi fekk ñu Dakar. fu mu la fekk. ok ñu fekk ñu nekk tournage Gànnaar. deuxième saison ganu ndar tournage. waaw léegi ganu ndar munoo leen a tourné ndar xam nga Dakar Saint-Louis soriwul te yor ngeen na leen. en tout cas daal macha allah yàlla teral na leen macha allah sëñ Medoune Seye teral na leen tubaarkàlla. waaye teral na leen. ñu catu yow kañ ngay jóg yéen kañ ngeen tàggoo. waaw wuy ma doo leen bàyyi ci diggante Wally ak Sidi bi ngeen di dugg nag yéen tamit. dee leen dem soirée Sidi Diop bi. yow seytaane nga <laughs> yo mi Sidi suñu frère la Wally suñu frère la ñoom suñuy xarit lañ mais ndaxte le décembre ñoom ñaar ñëpp ña nga Kaolack nangaan. loolu de seen loxo génn ci. Bercy Saloum. yéen seen loxo génnu ci. dana doy waar lool. man bu ma woo ànduma ak yéen. man <laughs> ayca mu ngi noonu le golden boy lañu toogal noonu ñànk ngi lay kontaane. waaw maa ngi leen di bëgg lu bare bay la woon xawoon na ba na depuis Korité. Ah, nu ngeen def salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn kenn tudd wax sant maa leen suñu sey bi tas depuis Korité doo wax lu ko tas. non tasul. du problème mu xotti du problème mu dara mais waxal waa aduna lan moo tas suñu sëy man ak yow. man ak moom suñu tey suñu sëy tasul amuñu benn jafe-jafe. amuñu benn problème ba ba fi ñu may wax yow xaw ma problème amuñu problème. léegi nan nga def ba ma Korité euh, ci rond point rond point péage bi. ah man daal xam naa déggoon naa mu leen woo ngay xaw xaw ma daal ay jën ñu bëgg rek nga ñëw ñun ci sa relation ak DJ Paco ba tax nga teew ci bés. waaw kay DJ Paco nit ko maa maa ngi nii waa àddina bi yëpp d'abord di ñaanal senegal yàlla def fi jam yàlla saxal fi jàmm senegal ndax réewum jàmm la maa ngi baalu ñu ñuy àq nag reetaan yi <laughs> waaw. war leen a baalu àq maa waaw aussi di wax ni sama di sama relation ak Paco Paco artiste la donc euh, animateur la te nit ku baax la man ma numee moom ma ma ko présenté waaye daanaka gën na maa jàpp ko ma numee ndax moom nit ku baax la te aussi xam nga ñun ay jeunes lañ te dañoo war di dañ dañoo war di mayante doole donc te moom tamit ku am compréhension la ci côté boobu domaine boobu moo tax su wootee lu mel nii ñun dañoo war a bàyyi lépp luñ jàppoon demal ko. léegi ci biir mayante doole boobu lan moo tax bi Sidi Diop di tëgg berseem bi passé ci Ndakaaru ñëwoo leen ci programme bi te fu waale tëgg ngeen dem fa. man man ñun ñu koy ah, Sidi tëgg na ay ay programme yu ne ñu dem hmm. waaw dañoo dañoo demoon Ndar dem dañoo amoon tournage. te yor ngeen ay oto tubaarkaala sëñ teral na leen waaye teral na leen yàlla teral na leen tubaar tubaarkaala. waaw dama ñëwoon spectacle tournage lañ demoon mu di mu diire cinq jours donc mënuñ ci mënuñ cee boole ak dem dem spectacle wax dëgg yàlla waaye donc suñu xel ak suñu xol yëpp mu woon ci foofu ndax sunu suñu frère la vraiment waaw. Hmm. est-ce que eh, lan moo tax waxoo euh, euh, ñànku golden boy nga ne ñànku Faramareen parce que golden boy Sidi lañ koy wax Faramareen waare lañ koy wax. man Faramareen la léegi noo sant. Seck. Maria may sa biige. man doomu Mareen la. may sa biige maar ma si biige maar. ajum naar mi des ci ndoom. man Mareen piir la. jargadee nga làmbaay. doon Mareen ba pare doon golden boy. ñu ñu woo la njiin ba muy juróom-ñaari yoon. ma nekk njiin ñëw njiin fara Mareen. cum barke yonent bi. gis ngeen def ganu Thiès gis ngeen def ganu Ndar gani gani gan fan moo ci des ban dëkk ci des ngeen war a gane nono projet yi bari na donc war nañu dem Mm, am na am na fil conducteur daal am na parce que waaw nañ nañ bàyyi rek mu nekk suspense ndax ndax dañuy jóge dëkk bi donc lenn lu nekk ak lu ñuy yóbbu ci beneen dëkk ganu ganu ganu yi am na ko waaw. daalu ngaay laa leen tuddee di sax doomu day naan ñu ko bëgg jënd nañ ko. wuy ma kii waxuma waxam léegi ganu États-Unis nag dama leen a bëgg a booleeg moo geet boole leen ak sama patron Doudou Seck DS tubarkalla jamono yuñ toll moo teg loxo ci àdduna DS Pro. waaw incha allah xam nga ñun moom euh, yow xam nga ñu yow moom xaw ma ku ma umpale waaye xam nga ma ci liggéey donc liggéey boobu ñu nekkoon ba tey ci lañ ne ba suba ci la nekk liggéey moo ñu liggéey moo ñu yóbbu Mbora moo ñu yóbbu Fass booy moo ñu yóbbu feneen moo ñu yoral àddina bi moo ñu waral Sénégal yëpp dinañu waral àddina bi. fanaan loo ñu ci salle de classe yi chaque jour dama naan euh, ñànku su amee lii du chance mérite la parce que da ko da ko da ko bokkul ci ñi nga xamante ne rek dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo jékki-jékki rek ñu gësam leen dafa ñor taab waaw loolu loolu waaw nga seede ndax xam nga rek comme ñun moom lii la ñu gëm moom la ñu xam ñun théâtre lañ man ñu man dama gëm théâtre li waale dalay voyage loo sa passeport ñun théâtre defloo nañu lu ne ñun dañoo gëm théâtre man man damaa gëm théâtre damaa gëm cinéma parce que loolu moo nekk sama métier moom laay def ma leneen mais boo gisee euh, théâtre ni mu demee léegi da gis ñoo xamante ne dinañ ci summi ay slip ñii dinañ ci tëddante def yenn affaire exagéré yi loolu noo ci mën a wax. mais loolu du théâtre quoi loolu loolu loolu téléfilm yi la. loolu du théâtre xam nga théâtre amul lool théâtre théâtre donc euh, c'est l'art exposer la vie sur scène donc euh, mais mais mais ci forme artistique et esthétique théâtre mooy live nga jàkkaarloog nit ñi di jouer théâtre mais téléfilm yi yooyu la te xam nga lu tax loolu xaw a compliqué tuuti mooy yenn yenn réalisateurs yi donc ñoom ñoo waroon xam ne ñun dañoo nekk ci benn société boo xamante ni dafa dafa xaw a dafa xaw a spécial tuuti laal côté diine ñoo xawoon di euh, ma wormaal affaire bi ñu bàyyi ko xel euh, réseaux sociaux yi moo tax ak léegi ni ni ni ni ni réew mi développé mais méttiwul woon parce que boo demee domaine cinéma moo gën a garaaw ndax lépp nga fay gis a gisoo nit ñu di ci coow parce que nit ñi jegewuñ cinéma cinéma dañ koy projecté bu dee koy téléfilm yi série yi nii nit ñi dañ koy seetaan chaque jour seen téléphone yi ak seen kër yi loolu dafa jege nit ñi kon dañoo war a bàyyi xel ci yooyu noonu waaw ko war a bàyyi xel. ñu bàyyi la rek nga wax say dernier mot waxal ñu dara ci waa DS Pro. waaw di leen ñaanal yàlla maa ngi leen di ñaanal yàlla dafa leen jàmm di wax ne incha allah xam naa du ñàkk dinañ def ak ñoom projet ndax comme ñun dañ fee nekk di def projet rek ah <laughs> déedéet. non non non non. waaw mais balaa loolu sax sa digganteeg sa digganteeg Mandoumbe lan la parce que tamit euh, dégg naa tur bi nga yoroon yëmbal dafa tas ndax sa digganteeg Mandoumbe. tasul tasul naan barke dem dem naa répété ñu ngi préparé spectacle ba tudd Saraba la vin bi ñun Covid bi bi bi troupe yëpp liggéeyul ñun ñu ngi liggéey sama troupe tous les jours clair de lune ku ko xam démb ba tey xam ni ci ay création lay euh, soo demee fekk leen foofu da ngay yaakaar ne dañoo am match coupe du ndax sport bi ñuy def ndax dañuy compéter tous les jours clair de ku ko xam ñu ngi liggéey euh, général mu ngi fa doxandéem mu ngi fa Omar a ngi fa Dama a ñu ngi liggéey. merci beaucoup yaa tudd général sama xel dem ci lan moo tax euh, euh, contingent général Kairé kenn mësula ci gis. bo lu tax ma fay dem. ah waaw mais xanaa général waroo warul nekk sa sa sa sa doom sax laay wax ndax ci sa loxo la nekk tey ba am lu mu am lan moo tax suy def dara doo dem soutenir ko. loolu ñoom ñoom li ñuy def one man show man nekkuma nekkuma humoriste nekkuma humoriste di def one man show man defuma lool donc sama koy dama koy encouragé ci ci initiative bi mu jël accompagner ko waaye pas ma yéeg ci kaw seen dem na nag damay dem euh, soutenir ko mooy ñëw toog su ma amee xalaat wax ko ko mais pas ma yéeg du jeu que loolu du sama dem dem naa nag ah. dem naa laajal waa Walfadjri koo dugal ngay war dem naa ay ca dem na jërë ngeen dem Maria, yaakaar naa ne ko tere ba ci jaajëf dinaa bëri lool ndax yow da ngay jaajëf yaay Modou Kara gaaw rek ci baa ngi nii muy Papa As kenn dootu ko présenté ci àdduna mooy borom capital Papa As ñu lay ziar. waaw ñu ngi lay fay bu baax di la nuyuwaat bu baax di la jaajëfal yow tamit. waaw mais Papa As. Hmm. Papa As noo noo yi ba foo tourné dégg ñu naan capital Papa As capital Papa waaw xam nga sénégalais yi tam ñun li ñuy def suñu yéene yëpp mooy bégal sénégalais yi tey booy def loo xam ne méttiwul amul lu lu lu tar luy gaañ doomu aadama sénégalais yi xam nañ lu baax bëgg nañ ko lool. te ndax kuy wax lu baax ku ne defe naa sénégalais yi nga ciy jiital waaye ñun amuñu lu dul sénégalais yi dañ leen di fayaat ci bëgg googu ñu bëgg bu baax di leen jaajëfalaat voilà mu ngi noonu. waaw Pago nag dañoo bokk nekk Thiès mu doon nit ku baax nit ku yëg nit bëgg nit doomu aadama li ñuy wax ni lenn rek nga ko mën a wan mu yëg muy yëg-yëg ak bëgg ko mais du koom-koom du lenn te DJ Pago daal benn melo la mi ngi noonu ni mu mel mbuur noonu la mel Thiès waaw mu doon ku baax daal. waaw noo yéen def leen ba mu tëb rek def leen ba mu tëb yéen ci kaw ci kanam rek bu leen ragal loolu jaajëf mais yaay mool ne nag ay ca kuy xalam di ca jaay nag barke ba yaay borom te buñ fi naree ñaaw rek ñu ànd ñibbi ngaay waaw loolu la ñuy def maag yow danoo bokk dëkk bokk bërëb di ngaay mexe ma fay nuyu sama papa ji ma nga ca mambara nuyu wangaay ngaay yëpp di la nuyu papa Sala Diop tubaarikàlla kenn du moom ma Diop mbaaco ma taar ma maamam kooku la maam rafet ba xëy dee sama papa ji xanaa. déet Balla yow taar booboo la topp. moo ma topp ba tey nii. bul wax Balla ce que doo ñu may jàmm tuuti ci TikTok bi. Balla lu ne nga ñuy fawee. ah ñoo ko def de ñoom ñi ma autorisé may def lu ma neex. <laughs> sa relation ak DJ Paco lan la. yu fort la relation bu fort la sama xarit la suma doomu ndey la maa ngi wax léegi su ma demee Thiès dematuma résidence la joor dematuma fenn këram laay nekk. waa dematuñu sax këram laay nekk suba ba ngoon jot fa laay lekke fa laay naane su ma su ma ñëwee Thiès dafa cinq minutes ñibbi te jaaruma fa sax daf may mere donc relation yu am doole la ñu am tey wax dëgg yàlla waaw man daal looloo tax ma teew fi war a wane ni bis bi sama bés la xaqataay show commencement ba fin fi la ma fekk te incha allahu rabbi day continuer tubaarkàlla borom baax la. dëgg la maa ngi lay kontaanee bala de sol daalu ngaay na waa ngaay ñu ngi kaas loo. lii ngaay ko defar. Ah! kii nii Modou ngaay la. xam nga ngaay xam nga lu ci neex. dañuy ëw ba ëw kër demal. kon yaa ngi yaay jooy sama yaay jooy ba ay loolu ndës ko deuxième jour sama yaay ñëwaat. sama nijaay daa ñëw ku ne xam ne ne bokkal naa masse bu courte lay doon du am fii théorie xam nañ ko mbay si xam nga li may wax bu baax xam nga lii bokkal naa maanaam foxoya sama nijaay bu ñu di nuyu xale bi daa leen di xale bi gis bi ne karaw karaw ah xëy ngay bëgg am sama nijaay ne waat du ma fooy de te bu la may wut sama karaw bu ko tëjee ko sama maire bi ne ah yow kii àll ko di kër yi rek kii day foo mu ne foo may fooy jëlaw lii ah, daal doomu géñoo lii daal bu doon baayam daanaka may mu buddi waaye yow mii. <laughs> ndeysaan sama ne yaay yaram bi daw mu bàyyi def nii au mu dugg nii sama naay buy jour ku ne xam ne ne yàlla daa mën a bind am na ñu bëri karaw. macha allah soxna si ko gis ku bari karaw la sama nijaay yow def garab bu sama nijaay day simbi rek booy bi gis poqotaan kon na xam ne ci suuf am na karaw booy bi ne karaw mu njàng eh. eh non non non non non non eh waxal ak xale bi du ma ko fayee mais bi naa ah, yow al ko munoo eh ali lan yow xanaa mooy karaw joxoon mu ne ko man ko dama ko dese dinaa karaw mu ne amee karaw nga war a yor nag xale bi fooyee karaw koy bay garaawul toog ne ah man naan lii ah sama yaay waxoon na ma ne bu jëkkër dañ koy tànn waaye lii jëkkër sama nijaay yaram ji daaw moom it comme dafa bëgg soxna te mu saaf mu daal di bàyyi booy wuti lan moo des ban karawanees ay ayca moo ngi noonu kenn du ko présenté ci àdduna bu la neexee nga ne ko cas borom ceeskaay bu la neexee nga ne ko pili pili mais temps yi pili pili mooy toj dëkk bi de. waaw mais pili pili salaamaaleykum di nuyu réew mi di nuyu adduna ñëpp di leen jaajëfal di jaajëfal sama fans yi di leen wax ni yàlla na yàlla defal jàmm ñu yàgg bëggalante. Mhm. barke yonent bi amiin euh, ñu bëggoon xam sa relation ak Dj Paco. waaw Dj Paco nit ku baax la nit ku gore nekk koo xamante ni maanaam euh, euh, nit li may wax rek boo oyofee rek mën a ànd ak ñëpp parce que oyof rek la ñuy jàppee doomu aadama mu doon koo xamante ni nag maanaam xaaj la ci ñun moo waral bu xewlee fu mën di ne dañ ko fay fekk fa tabarkàlla moo waral tey suñu teewaay mhm. ñëw ànd ak moom ci bis bi ba jeex tàkk. dëgg yàlla yaa ngi waaw Thiat Show mu di le 27 novembre. le 27 novembre ñu war a jëmaat Sams Prestige defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañ ko bëgg a dabal baaxantal rek dëgg nee ko waaw loolu lañ bëggaat daal di woo waa yëpp leen wax ñu ñëw parce que amuñu lu dul bëggalante dañ leen war di bëggal loolu dong moo may ñun waa DS Pro. waa DS Pro ñi nga xamante fa tabarkaale ku ñëw ñu daaj loole wax loole bëggal la nee naa la information yu leer ñëwal DS Pro film neex ñëwal tiit kii des <laughs> ay jo tubaarkàlla moo ngi noonu nee naa la moom nag kenn du ko présenté euh, ci àdduna ah kaaw mooy kaaw waa Sénégal yëpp ah kaaw ñu ngi lay ah, maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax di la delloo ziar bu bari. borom Thiès kaay benn dëkk. waaw gisoo borom Thiès kaay benn dëkk ñaari. kaaw bugg a seet si kër bi fii. Hmm. dafa ni dafa fay dem seen kër Ndeye Ndiaye boo ko gisee nga wawal ma ka Ndeye Ndiaye ba ma yëg mu yuuxu ko foofu ma xool ko foofu. ayca euh, waaw waaw waaw xam nga li may wax rek ay ndaanaan dañuy gisante ay ndaanaan dañuy yëgante ci kaw sa mu nekk ku am talent nekk jigéen ju baax. macha allah ñu xam jëkkëram muy Alassane Gueye ku ko xool xam ne daf ko tàggat ci aar ba loo ko laaj mu jox la ko mu nekk koo xam ne macha allah xam na li muy def am na technique de jeu ñuy joué man ak moom wax dëgg yàlla mu may jox loo xam ne maa ngi koy cons ma di ko jox luy cons sénégalais yi tamit cons ko mu neex leen quoi franchement waaw. Euh, ñu bëggoon rek waaw Dj Paco li ñuy wax naan nit ku la yëg nga yëg ko jamono boobu lañ tool ku la bëgg nga bëgg ko jamono boobu lañ toll ku la faale nga faale ko jamono boobu lañ tol euh, jamono biñ toll nii da di jox nit li mu moom mu delloola li nga moom di jëppakoo tangam luwul kenn chaque jour des fois day jël téléphone am communiquer ak man lu yaatu di ma laaj ay conseil lu muy dugg mu ne ma nangam wala nangam wax dëgg fa yàlla mu nekk booy bu ma estimé parce que xam naa ne am na lu mu bëgg xam na fi mu bëgg a jëm moo tax lii bi mu amee ñun tamit ñu bàyyi li ñuy def yëpp ñëw fekk si ko jàppale ko te nga xam ne kenn ku ne di nga am bis muy ñëw ci taxaw ci ñu di ko gis kon war nañ koo taxawal. DS Pro maa ngi leen di gis ah. maa ngi leen di gis yéen a ngi liggéey liggéey bu mucc ayib yéen a ngi liggéey liggéey bu extraordinaire. di wax ni jàpp tawa bàyyi nag mooy tax àgg fa ma jëm yow kenn du la wax ndaanaan nga maa ngi wax ak yow waaye xam nga ni xam naa yaw xam nga ni ndaanaan nga micro bii du tey lii nii lii daf la fekk ci sa yoon waaw kon dañoo wax ne micro ci pro micro ci loxo boo gisee pro xam ko yow ndaanaan nga waaw. looloo la bañ daje Thiès waaw jeex na. ah ma ne ko peccum liir nag bu neexee ndey jaatee ca wagg ya waaye kii dootuñu ko présenté ci àdduna moom mooy Kombe. ah dëgg neexul mujj nga ma présenté déedéet dootuñu la présenté xam nga lu tax yow yaa tax artistes yi tubarkaal la yaa leen teree dof daal ci gàttal ñu nëbbatu woon te feeñuñu yaa leen feeñal ku weddi na laaj casak booy séeréer mbaa mu laaj baay gaaya dañ la koo nangul yow fi mu ne nii tubarkaal la yàlla na sa jàmm yàgg loo mën ren yàlla na nga man déwén lu ko ëpp ñun da yaa ñu teree dof te yaa ñu tax a siiw dëgg neexul bu ñu toogee ba namm caméra yaa ñuy xëcc wooñu jox ñu kase boo xam ne dañuy fay ndox fay courant dese weccet foo ne maa ngi lay kontaane papa <laughs> bu ma bindal chèque nag dégg man mosuma woon xam ne naka réew naka réew naka réew nii nga yàqoo nii man ci àddina. <laughs> waaw mais wax ci sa mbaaxu waaye du wàññi ci sa mbaax dara. waaw yaa ko def nag te ki ko def ki ko wax la ba non non non non non man gëm naa ne def ma dara mënuma dara lépp rek euh, ci yàlla suñu borom la moom moo mën moom mooy def moom moo ñuy sagal rek ñun ñuy sagalaate kon dañuy ñaan yàlla yàlla gën ñu fee saxal ba ñu mën di sagal ñu bare bare bare bare ci sagam moom donc di ñëpp à travers internet bi dina di leen safoo di leen fàlle di leen wax ne amuñu us tamit ñu dul ñoom amuñu us tamit lu leen sut ndax tey buñ defoon tamit aussi kenn seetaan na ko euh, defe naa ne du safe waaye buñ defee ñoom ñooñu seetaan ñoom ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax aussi tamit di leen gërëm mu ngi noonu mm-hmm. Mm-hmm. Euh, balaa may ñëw ci sa relation ak euh, DJ Paco dama bëgg rek nga ñëw ci Kër Kombé TV ni nga ubbee ni nga yaatalee ah, euh, loolu lan la lan moo ko waral. waaw xam nga xam nga xam nga dañuy wax ne euh, sénégalais dafa bëgg moroom sénégalais donc dama bëgg nag bëgguma mu yem ci ay wax donc nañ koy jëfee nañ koy jëfee fu ñu mënti toll donc tey li ma am mu néew mu bari ñaan naa yàlla samay samay moroom am lu ko raw wala am boog lu ko sut moom mooy tax nag defe naa ne nit. góor moom mooy jàpp ci loxo góor pour yóbbu góor kon ñun ñoo war a mën a jàppalante donc ba kenn ku si nekk fa mu toll mu mën faa toll bu baax a baax a baax loolu kese moom moo ma tax a jóg vraiment pour ñu dimbalante. dëgg la sa digganteeg di jàppakoo lan la. waa Paco sama seex la sama xarit la sama lépp la mu ngi noonu nekk sama waay euh, Paco defe naa ne du lii moom moo ñu boole man ak moom démb la woon euh, ba mu jugee fi dem Cap-Vert man ak moom ñuy continuer di ànd ba mu jugee cap ñëwaat euh, Thiès man ak moom ñuy ànd ba yàlla dogal ma nekk ci benn secteur doon fa liggéey fexe ba moom mu ñëw foofu noonu tamit aussi tamit di liggéeyandoo ak man foofu noonu secteur boobu noonu looloo waral tey Dj Paco jugee mbuur ñëw cees nekk fa ak ñun kon defe naa ne kooku noonu bu xewlee rafet na man ma bàyyi sama yitte yëpp jugee Thiès daal di ñëw Mbour aussi fekk si ko vraiment. Mm-hmm. dëgg la euh, waa di leen wax ne nag euh, maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ndax yéen ak ñuy feeñal lool rek laa leen di wax. Mm-hmm. kon papa. ci kanam kontaan naa ca kanam kon. muy comprendre ko yaa ngi doog a xale. Aliou Fass bi moo baax ay karaw ko fooyee. kon xam ne Aliou Fass da ngay jaaxaan. sabali yaay jaaxaan na. yow bu dul guddi gën a ba yow xale bi bu nga sa kaw loolu neexul sama liggéey jaaxal bu mu jaaxal rek bu xam ne rek parce que naan gërbut gërbut gërbut sa gars yi nekk ci gërbut gërbut affaire yi neex na mu naan tëj ñu ne mbéb boobu ne mbéb ah maire bi nag ko ah di jar yaa ngi may bëgg a jaaxal yow mun naa yor dara xale bi ñaan la ko xamal kii bëgg ni nii la ak murit day daanu dee leen daanu dee leen daanu si ah, kanam daanoo gul dee leen daanu ñu si digg bi daanoo gul dee leen daanu ak murit day daanu ah jigéen ñaa eh, na ku war a kii may gis ñu ci ci poset bii juróom la ko doon wax dama ko laal jërëjëf lii de mujj naa doon jàng sama yaay bu mu nee biib booy bi ne na ah! kii nag Moustapha ay kara xamee naa ko reewaale dem dem na ko mais bu dee ne yor na biib rek yor ne ah billahi yor na biib kii dafa bëgg a sosal mère bi ne ah ah jërëjëf fële am na ku bëgg a daanuwaat am na ku daanoo fi jërëjëf waa te yow fu ah. mu doon na xaar dama yàgg di seen bi ah. ku daanu ku daanu léegi soxna si ah reetaan nag day doy yéen yéen ñi ne reetaan day doy booy reetaan ba ñëpp noppi da ngay noppi lii ko gis xam ne nekkatul reetaan siñ la ah waaw da ngay noppi bëgg a daanu kooku day daanu. ay ju tubaarkàlla naa ma yëgul njool ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay baax baax eh oui. di la kontaane bu baax a noo def. maa ngi bu baax ak di la namm. ah laa ñoo raw. namm say yëf. man ni namm naa télé bi. say yu baax. namm naa télé bi. say ambiance. bilaay namm naa télé bi. <laughs> ñoo la raw waa DS Pro. mais DS Pro namm naa mhm. ñoo la raw. ah fi man de maa ngi fi. dëgg neexul ma la ko du ñëw ñoo poñe àdduna teg ci loxo fi ne nii sa relation ak Didier Bako lan la. waaw day ni ku baax ni ku oyof ni ku humble ni ku bëgg ñëpp ni koo xam ne bëggul kenn ñàkk mm-hmm. bu sañoon ñëppay am bu sañoon ñëpp ñëppay tedd. Mm-hmm. ba tax na moom bu wootee gis nga artistes yi fi teew ñëpp ñi tey ji bu doon kenn moo leen moo doon déplacé dina mm-hmm. fi génne ay millions yu bëri yu mais moom xolam ak baaxam moo tax mun a dajale artistes yu nii fii fi ci Mbour. nit nag ni nga mel noonu la sa bis di mel boo xoolee bis li naan bis tuur borom lay tollool boo xoolee bis ni mu taaroon ni artiste yëpp teew te artiste fii artiste yi ñu gën a ràññee Sénégal nga fi gis kon ba tax na kon moom ni mel rek lu bisam mel waaw mu ngi noonu. mais sa complicité ak euh, Thiass lan la. waaw ah, Thiass de maa dañoo bokk dañoo mel ku bokk ndey ak baay. Mm-hmm. waaw dañoo bokk avant aar ndax euh, buñ jugee ci lii. daanaka ñooy bokk fanaan ñooy bokk def lépp te dañuy dañuy sottante xalaat ku ne ku di xelal sa moroom ku ne di xalaatal sa moroom ku ne di dooleel sa moroom maanaam maa ngi ma mënoo xamee kan moo yor kan ci yor tey jii su ma doo xam moom ko yoree doo xam fu ñu di dem lu ñu yor dana amoon teel bu dem dem dem fu ko neex mën naa mën naa yor xaalisam ay ay ay weer du ci duñ ngang noonu lañ demee day nit ku baax daal day sama frère ñu bokk ndey ak baay man su ma ñëw Thiès sama yaay ngi Thiès sama baaba ngi Thiès ñëpp a ngi Thiès mais damay bàyyi suñu kër dem suñu kër fanaani fa waaw ndax ndax ndax niñ liñ liñ li yàlla boole tax waaw loolu ànd bu rafet jaa ngeen jëf ñu la lay jaajëfal bu baax a baax ah, Wally ñu ngi lay kontaane waaw maa ngi kontaan tey maa leen di ah, ah, kontaan Madda Mawdum kay jam tan jam tan kay selli selli mbaa mbaa di nga ko kon ne rek <laughs> bu dee ko kon ne rek ci dem <laughs> <laughs> ñu ko a xam sa relation ak DJ Paco lan la ba mu war sa teewaay. waaw DJ Paco dafa nekk euh, plus que frère quoi ndax yàlla def na ni sekkatuñu kase ay demalante wala dara dañoo dem ba ay frère lañ léegi moo tax bu xewle bisam dañuy déplacé wu dakaar Dakar à Mbour pour ñëw euh, dooleel ko quoi looloo tax ñu teew fii ni Mbour. waaw ca kaw ca kanam rek waaw affaire yi moom amul dellu ginnaaw <laughs> waaw. amul régulé ah, jàmm rek ayca sama ngover ba alaaji Moussa mu sell mi ñu ngi lay ziar maa ngi leen di delloo ziar bu wér borom riiru tribunal waaw am nañ ci wàll de ndax ci ngeen bokk yéen it waaw nam nañ la de ñu ngi nii rek ñu nam gis ñu moo tax ñu déplacé wu ñëw ba fii pour ngeen mën ñoo gis waaw mais lan moo waral nga raar temps yi raar mel ni ku dugg ku dugg xël wa lan la waaw raar euh, ci écran bi waaw la ma uti woon xaalis dañoo féete woon beneen côté bi nekkoon ci caravane yeeg fi affaire yi bagage yu sew yooyu lañ demoon rek xam loolu lañ nekkoon waaw. ne da ngeen a ñam caravane sama gars yi dañoo ma si dugal xam nga rek bëgg koppar rek ay borom kër lañ te bëgg ñoo toog ay artistes lañ xam nga te loolu da lay am lu mu lay répétition la maanaam ni nga ko mën a waxee quoi day delluwaat la nga soxla woon sa yaram parce que ñun loolu lañ war suñu habitude waaw. Euh, sa relation ak DJ Paco ba mu tax nga déplacé waaw euh, lu naan sotti ceeg def ci la parce que xam nga artiste la DJ Paco day nit ku yaatu ku ouvert man yàgguma ko xam daaw jéeg laa xam may kii woon ba fële tonton Tafa moom a ko présenté xam nga ñu xamante vraiment muy koo xam ne ku baax la vraiment ku yaatu ku teey ku yaru timit xam nga yooyu moo tax ñu dañoo nekkoon benn prestation bu ñu demoon nii bu ñu jeexee. guddee na jeex trop mais nu mu métti métti métti il ñu ñëw teewal DJ Paco ndax dañu ko dañoo am ji affaire boobu moo tax ngeen baal ma nag si waa bi tey dama xaw a tawat moo tax. waaw. Eh, ay day nokkaati de. de. Eh, wax naa la. ku mu nokk nga nokk. papa demal wuyu demal wuyu. boo askan. demal demal. demal wuyu. demal rek. booy dem day lakkal sama xon booy dem ñu nakkal sama xon booy dem ñu nakkal sama xon demal demal loolu looy looy loo kii muy daw de xam naa leen xam naa leen ah ah kii kii la ah. bu demee bu demee kii kii kii kii doomu xaram la. ndeysaan waaye boo waxee déglu bu wayul mënul way day fen dina daa ay waay xanaa du mënul way jërëjëf DJ yokkul ñu écho bi waa 3D maa ngi leen nuyu eh, bu bu ala bi yem ala bi yem dina farata bul yokk écho bul yokkaano écho kii mënul eh, eh, eh lan ngay way yow ndeysaan kaay kaay kaay kaay kaay monsieur dama la wax lay lay def lay way yow eh def ko jegas wata kai kai wara ko kai aka ta ta ta nyanku ataf nyanku wa da ko ya ben te ri ay wa wa ka ara ka da ma suli ka wa kai kai ah wa kai wa ko mu mel ko lekka pobal eh akay kay famille ñàkk dafay nang papa fami waat na ma de yow yow ñàkk nañu wax sawaraay ni nay papa eh, eh. ay ay yow yow yow yow ba mi nga waxal sa baay yi affaire yi affaire yow yow loolu loolu loolu loolu ci dem de nan la la def day way day loolu yow yow yow yow yow soo lay de waay dem yow yaa ngi dem ba ñëw deewoo kay kon du ma de waaye ma ne yow bokkuñ yow yow yow xaa xamoo kii yow kii dakay sa ah, famille solo muutoo ñaari yoon day de waaw yow nee naa man ma man doom xaram paala ah ma ñame naa ko eh, ndumbi walla ñànku waaw leen waxal de walla xam ngeen umbal ngeen artu waaw yow da ngaa dof ko ne sa anam Kolda bii dafa baax de. dafa soxor xam naa la. yow tam yéen ñaar yooyu yam yow laay wax. gis ngeen xale jigéen buur yi. gis ngeen su ngeen ko képpul day def leen topp. man maa man maa ko wax. kay kay day fen. yow ñaar ah, kan mooy fen. yow xoolee kii ah, waaye ndaw si ndaw si dafa ñëw fen ko ni ñaam ku yeeg. lan. laajte bi xaw ma lu mu lay def laa bëgg a xam lu la maam bi nga eh, eh, eh, kay sige ah. femme bi ma ñamal la seyoon. ñëpp yow kat da ngaa ñëw kontaan sawe. waaw fi ah, fi fi ma jógee kay ku ku fa jógee da ngay kontaan. xëy na xëy ñami naan ku sa jóge kontaan. femme bi femme bi femme bi lu gën a neex moom euh, douze bi nekkul douze nga xam ne nga jox ko ba ci suuf eh. xanaa xanaa yàlla nga xam ne dafay toog mel ni ku doon séeréer. ñaan ko eh, ñaan naa leen fi sàbbi laay. jël leen buum. ngeen takka ko. takk leen. Eh, takkal leen ko rek xamal li ma la wax wala ana andi ana faami ay mu do gul me gos xanaa su ko tàgg yow da koy tàgg eh boo ma ko waxee ma ñappal sama mu do ma ñappal sama da nga ci sama lay nokkal léegi léegi ma nokkal sama mu la mu do mar fa se la la mu do mar mar ay ay damay nokkal sama wan léegi day waxal ñëwal ñëwal ayca euh, ñu ngi nii nag jàkkaarlook suñu papa suñu nijaay moom tamit euh, muy bonbon sucré borom Virginie boroom Karma baylo laa bëgg nga waxal ma ko baylo. baylo walla me yaa ko daala baylo yaay koy yóbbu. <laughs> waa mais bonbon dañu bëgg a xam ba xam yow euh, xalpulaar nga walla la waaw man pël la Euh, ñu gis euh, ngay def lu doy waar euh, jamono yi ñu toll bu njëkk ci sur bi rek lañ la daan gis mais léegi gis nañ nga dugg ci cinéma bi tout ñu bëggoon a xam rek lan mooy sa secret. bon secret amul liggéey la rek man chaque jour damay répété ba tey loolu lay secret bi rek amul secret soo répété soo dem da ngay tari man ba léegi damay répété loolu lay secret bi waaw. lan moo la yóbbu Marodi. bon casting la am na koo xam ne à l'époque Maguette la tudd tata Maguette de passage moo ngi koy nuyu moom moo géré casting bi donc moom moo casting am na boobu ci série Adja Vacances la woon je me bon après ci lañ ma jëloo ma doon nekkoon concurrent papa ñoom jogoon voilà ci laa demoon Marodi waaw. Ah, ñu bëgg a xam sa relation ak DJ Paco ba tax nga déplacé ñoom. waaw DJ Paco en fait c'est un jeune frère un comédien man en fait du DJ Paco kese ku un jeune artiste. sama objectif mooy lan laay def ba ñu gis la devant les caméras mais aussi lan laay def ba ñu gis la devant la scène donc man loolu moo nekkoon sama objectif donc sama rakk su organiser dara te ñu am jot dama ma tournage pourquoi pas du ñoo may ko loxo donc loolu la woon quoi. Despo di leen ñaanal yàlla ñu dem ba ñu leen dégg comme ñuy dégg ay canal ay applis loolu laa leen ñaanal ci barki Nabil Moustapha waaw loolu laa leen di jërëjëf jërëjëf mais gars yi dañoo fàtte yow tamit artiste bu mag nga de gay da ngay la nëbbu sa bopp waaw man xam naa la. waaw xam naa nag gars yi mooy dañoo dañoo pareegul daal sóoru. ayca kii ñu jàkkaarloon nag nee naa la kenn dootu ko présenté ci kenn ci àdduna muy euh, Père Aly Niang ñu ngi lay kontaanee bu baax baax. ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax. balaa may ñëw ci sa digganteeg Dija Paco ak li la indi fii damay ñëw ci li ndaw yi di wax ci yow tey koo dégg mu ne li ci man ah, moom moo ko def ci man loolu lan mooy sa waaw loolu lu dara lu euh, lu ma jëlee woon ci doomu aadama yi la war ko delloowaat ci doomu aadama yi rek la waaw genre la rek amul sax duñ ci waaw duñ ciy bëgg wala dara koo gis mu am lu lu mu am si nit la ko jëlee boo goree delloo ko waat ci nit loolu la du leneen waaw. waaw mais aaru léegi noo ah, bon aaru léegi nag gaa yaa ngi ciy góorgóorlu mais dafa des ñu jàppale ñu nag. dafa des ñu jàppale ñu parce que boo gisee aar bi léegi ni mu yaatoo. dëkk boo dem vraiment am na ay troupe yu fa nekk mais ba léegi tey état mi ngi croiser les bras amuñu ay école de formation amuñu dara donc buñ ci jàppoon ñoom def naa ne dinañ romb fi ñu toll tey. Euh, waaw Paco ku baax la te maa ngi ko xam à travers Cheikh Omar. te Cheikh Omar man ak Cheikh Omar Sénégal yëpp xam nañ ne man ak moom diggante lundi la ak mardi bés doxul suñu diggante koo xam ne xaritu Cheikh Omar la rek jàppal ne xaritu Cheikh Aly Niang la ñu dala ànd ba léegi vraiment ay nitam mooy samay nit waaw mooy sama waaw déedam mooy sama tànkam mooy samay tànk làmmiñam mooy sama làmmiñ moo tax moom fu mu nekk kër yoole ni nga koy dang may fonke wala what the fuck xur yooli ñaalu gëj naa ko dàng alaay Boy. rek ndeysaan wayal wayal Abdoulaye Daaro Maari Maajoor Maajoor Maajoorey eh. Maajoorey mm-hmm. dañu ne baaxoon barañee maala dëgg dawul baare eh. amul téer bu indaale ciseau ah tëgg dawul maar tëgg dawul maar tëgg tëgg tëgg tëgg dawul maar waa daa mel ni foofu mi ngi neex de ndeysaan tëgg dawul maar eh, laama mbokku internetu DS Prod ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax ah, di leen fàttali rekk na leen ñoo ngi woon fii ci Mbour géej fii ci Petite Côte bi nee naa la tubarkàlla ah, lépp lu la réeroon ci aar tey gis ngeen ko fi ndax gis nañ sowru bàyyi gis nañu ambiance artistes yi jóge nañ fu nekk Sénégal ñëw wuy si kii di Dj ci xaqataay show bi lii la ñu leen indiloon ngeen àndoon ak waa DS Prod canta ak ngërëm ñeel na leen merci beaucoup on jaaraama allah baax ka njoo ko jël jaraboot ma àndoon sama caméraman sama ma àndoon ak sama caméraman Seydina Alioune ah Seydina Alioune mu sell mi tubaarkàlla l'ambassadeur des techniciens nee naa ko lu mu lu mu cadré baaxul lu mu monté wul baaxul ayca kon di leen wax rek dig daje à très bientôt ci yeneen i programme yeneen i événement yeneen i artistes allez ciao ciao